kenn ku ci nekk nag man dama koy faral di wax am nga handicap que mu feeñ que mu nëbbatu mais ñi nga xamante ni seen i handicap xëy na dafa xaw a fës ñoom ñoo ñoo la ñu dajale tey fii ci biir soraanoo euh, ngir ñenn ñi ñu wan leen ne am nañu sañ-sañu exprimer wu am nañu sañ-sañu def li nit yi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ne ñoo normal entre guillemets di def loolu moo waral ndaje bi mais itam émission laago du wees foog naa duñ ko présenter benn handicapé ndax euh, da ngeen koy seetaan da ngeen ciy participer dañ ciy wane itam talent wu handicapé wu Sénégal yëpp ñu gis ne euh, da ngeen di bay seen waar ci wàllu bu mënti doon ci wàllu aar bi ak itam sax ci yeneen i wàll loolu moo waral daje bi ma kontaan ci jàkkaarloog yéen Euh, pour ñi nga xam ne xamuñ ma collègue Aïssatou la ñu bokk RDV euh, di fa liggéey liggéey boo xamante ni macha allah daf ciy faral di jàpp di ñu conseiller ba tax na lu mu wootee dañuy sawar ñëw jàppale ko ci alors Aïssatou mi leen woo nag tey dajale leen moom laay woo mu ñëw wuy si ma fii si seen bi waxtaan ak yéen wax leen li waral ndaje mi Aïssatou ma jëli ko ma jël si la macha allah sa sañse rafet na. alors seen tàcc seen tàcc tooy na trop dafa mel ni sañse Aysatu bi neexu leen. waaw lii lii lii kontaan naa ci alors Aysatu. merci Ngoné asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen a taw fii yëpp di leen bëggee bu baax a baax sama mbokk handicapé yeeg valide yeeg ñëpp. yéen ñëpp kontaan naa si yéen macha allah di leen bëggee bu baax a baax kontaan ci teew bi ngeen teew fii ma wax leen ne rek handicapé dañoo am jom tàccu leen seen bopp. vraiment kontaan naa parce que yaakaar naa ne boo wootee ñaar nit sax teew rek succès la waxtuma ak handicapé yëpp déplacé maa ngi remercier bu baax a baax ci njëlbeen bi waa Mbambilor waa teg ci waa Rufisque waa Wakaam Yoff Yaraax Grand Dakar. Euh, Médina Colobane Fass yéen ñëpp maa ngi leen di béggee bu baax a baax même su ñëpp ñëwul sax kenn ñëw rek mbégte la pour man ba tax na maa ngi leen di bu baax a baax di leen sant di leen gërëm waaw programme bi nag du dara lu ngeen gisee Aïssatou mooy émission laaga du Wees bi muy def day sargal handicapé yi li tax may sargal handicapé yi mooy dañu am jom am jot ci ñëw émission bi nga xamante ne mooy émission laago du wees képp koo xamante ne gëm nga sa bopp ay sot dalay fekk si tàllal micro ngeen koy waxtaane loolu moo waral may sargal tey handicapé yi fas yéene leen jox ay diplôme ñi nga xamante ne ñëpp mérité na nag diplôme damay bañ ngeen comprendre ne ko neneen ñi nga xam ne am nañ diplôme yóbbaal nañ ñëpp parce que handicapé yëpp benn lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baay su ma joxee président rek xam leen ne assos bi yëpp laa ko jox ba tax na leen sant di gërëm kontaan ci yéen torop torop torop vraiment mënu ma leen fay samay dëkkandoo waa Tëngéej waa Bentali HLM ñëpp gis na len yakar na ne budé ben nit sax ñëw rek gërem na la kontaan na ci yeen ñëpp bu baaxa baax léegi damay bàyyi sama grand dal dugg ci légui léegi après ma délu ci wax jaa jëf merci beaucoup alors grand Bobu di dugg ci légui légui mi ngi wuyo mohammed Moussa Touech mom moy ñëw légui mom itam euh, sanni ñaari cadeau rek ci liñu fi dajalé du ko taay di wax Touech Touech Merci beaucoup Aïssatou, merci Sophia. Euh, di leen remercier di leen sant di leen gërëm di wax ni xëy na peut-être anniversaire bi mënoon na gën a neex nii wante jaam ak dogalam yàlla ak pexeem euh, le Sénégal dafa nekk en deuil non doon sax bëgg def benn une minute de silence bu ko aajo ñu def ñetti lixlaas wante mënuma ñàkk wax en intro ci Aïssatou c'est une très grande animatrice la présence de nos amis handicapés Nous nga xamante une émission bi mais Aïssatou n'est qu'une animatrice de télé qui a commencé à la radio. Mhm. donc yeen defe naa ne bu tatagalé, ba paré dañ len di wax ni asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu di len wax ni rek ngeen passer une très bonne soirée en attendant ñu dérouler programme bi parce que c'est divisé en deux parties je crois que je peux me permettre quand même un peu de le faire d'abord il y aura quelques artistes qui vont passer. Ensuite, à la mi-temps, comme on dit, Aïssatou va remettre certaines décorations. Ensuite, la deuxième partie, pour mon rek affaire bu nga une soft Du wax elle a été toujours battante comme vous et nous et vous ne êtes que la représentante de ce que Aïssatou est en train de faire à la RDV. Merci à la RDV, merci à la DTV, merci à tous les médias. Merci à vous merci à vous merci yéen tamit euh, ci teew bi hein, euh, ni mu waxé euh, programme bi tay lu riche riche lañ ci prévoir bokk na ci artistes yi nga xamante ne dañu am ay lago té terewul leen ñu yëngatu bu baax baax ci seen art di ci def lo xamante ne ñi ñëpp koy apprécier euh, dinañ ci wane légui léegi euh, kenn ci ñom mom lañuy tambalé mais itam dina am ay euh, décoration nim ko waxé yo xamante ay diplôme yo xam ne dina ko joxé ñi nga xamante ne nii jàppul sax xeyna ño gëna méritant mais ñenn ci ñi gëna méritant dina leen jox diplôme d'honneur ngir jaajëfal leen ci japp biñu japp ci émission bi di Laago du Wees légui léegi dañuy and ak kenn ci artiste yoyu muy aadama aadama euh, nag moom kora lay joué dañ koy bàyyi mu defal ñu démonstration ci li nga xam ne loolu lay def ñu ànd savouré ko ay waaw li may jëkk a wax balaa ma woy sama xol dafa sedd ci RDV xam nga lu tax nit ki kenn téléwul ku nu jàppalewul rek yaa télé RDV li ay sutu def moom kenn mënu ko bu ngeen ci jàppal woon du ko mën kon kenn ku nekk nga nekk way laago ñu la seetaan nañu dugal loxo ci yow man mii tëgg koya kora bi Mamadou Kouyaté moo a ko jàngal ak samay moroom nañ leen génn ñi ci kër yi ñu jàngi métier jariñ seen bopp ñu dugg ci morceau bi ma doo leen doo may mu liggéey bi li ma ko wax ay ku ci tàccu yan na nga fekkee déwén <laughs> dama warul di jooy ca fajul naqar su fajoon naqar man du ma dese nangu naa daal lii yàlla dogal dama ñàkk ay bët ñu boole ci ñàkkal ma xel duñu def ba tàggu man duñu def ba boole ma ce xam naa ni daal lii yàlla dogal a dogal ànd ka pim baa ngi ñëw lafañ bi lañu koy wax ku doon sa bopp la neex ngay mel yàllaay dogal silmaxa baa ngi ñëw daal jàlle ko tali bi bët dafa neexul lu baa ngi nii sooy moom du la dégg foog ñu la ko gannaaw man dama warul di jooy jooy dafa jul naqar su fajoon naqar man du ma dese rongoñ may mun a sa yaay lii la yàlla dogal <laughs> ka taal maa law laayoo warul di jooy jooy dafa jul naqar su fajoon naqar man duma dese rongoñ ana yaay joor lii la dogal yéen a ngi si répondeur may sa wàlli alors gars ñi bàyyi leen ma seen message waaye dina leen delloo seen bataaxal incha allah jaajëfatee. allo Maysa man la Kiné soo jotee soo message nga woo ma c'est urgent te dëgguma yow rek laay xaar sama mënee rappeler. seeti leen ne ma naa may xooli yoo fan la jëm léeg-léeg noppi xaar yaakaar ni lépp dina baax mooy man daal may dundee yaakaar tey laal li ma si jéem laam waruma dëkkee li dem sama xool naam naam mooy daal may dundee yaakaar Leyla'ni masajahlan Sonrası masajahlan Ruhuma dökeninden O maserti bana Ahlen moko falale Bilyon la fi jankı barwer Tey moom laay wujel Léegi sax dootul man moom Man ne wax leen fu ne seçilenler Ne molamı oluyor Nam fanca Lele mana pihar Yakaliler dile bak we mandal ve tüne yakar Teynali masa cevap Waruma da kelidem Sama na na, we mandal ve tüne yakar tey laa le masa jeexlaat soxna si masa coon waruma dëkke ni deen oo seeti bànneex wax leen ma ko falale bi ñu naa fi jànk par weer tey moom laayu jeel léegi saa toxtuma moom bànneex wax leen fu ne ak bés Jeff Barquero. If I had just one tear left to cry. tàccu foog naa ne mérité na ëpp lii nag ah wala tey seen loxo yi day metti man daal seen ay tàccu neexuma junior boo mënee dellu si tuuti rek ah mu nekk euh, handicapé moteur mais mu bañ a bàyyi loxoom mu lànk ne du ko du ko bàyyee benn boroom tànk mbaa kenn koo xam ne dafa jàpp ne dafa am lu mu ko ëppale ba tax mu am fulla yi di jàng lii muy def nii muy def lu jafe-jafe même pour ñi nga xamante ne ñu jàpp ne seen lépp mat na mu di ko def foog naa ne yéen ñëpp ñi doon seetaan am ngeen émerveillement ñuy jaajëfal Aysatu mi ñu permettre ñu découvrir talent bu toll nii ah. ma laaj la rek ci ñaari kàddu naka nga euh, amee je veux dire inspiration wu ne lii di acrobatie ci loolu nga fas yéene daan sa doole wala ci mooy sa passion ba tax nga dugg ci ak ndax njàng mi metti woon na. salaamaaleykum ñi fi toog ñëpp.

su ñëpp défé ni man dootuñu gisati handicapé. alors te gëm na né sax inspiration nga pour jeune yëpp yi nga xamante ni euh ni nga ko waxee handicapé amul parce que képp ko xamné amna am cër bu manké ci sa yaram rek amna kenen ku am ay cëram ta am lenen lu ko manké lu ëpp solo te fokk na né fofu lañu wara xalaté bu ñu bëggé évoluer euh ñu jaajëfal la bu baaxa baax merci beaucoup bonne continuation Junior alors wax na leen ko sànq hein Abdou Guité sec foog naa Abdou Guité sek nekul ko xamne dañ nan len fi la toj wala fele la toj artiste la bu senegal yep xam mu yag euh, beegal xol yi tay nak mu ne dafa jël euh, initiative ñew fekk si den yeen ñi nga xamne da ngeen bok bu baaxa baax ci société bi euh, tax mu ñew ngir beegal len dama koy wo legi Abdou Guité mu ñew fekk ma sur scène ay ca you. may fital di ma xelal ma bégal ni da nga may bégal da di ma sonal ak di ma fetal ni da may sonal léeg-léeg nga may napp nappee coono àdduna coono àdduna di ma bégal ni danga may bégal léeg nga may bann bannee ni danga may lëjal di ma sonal ak di ma fetal ni danga may sonal léeg nga may napp nappee coono àdduna coono àdduna coono àdduna oo àdduna Chona Aduna, Chona Aduna, Chona Aduna, oh oh Aduna. Mata so say, money shipping. you can Look up, nigga.